question bi ma laaj nag yaakaar naa yaa ma gën a xam parce que démb ba tey maa ngi sur réseaux sociaux yi lépp lu war a am yaakaar naa liggéey boobu def na ko pour leeral Sénégal yi mais maa ngi siy dégg tamit ay yeneen rumeur yoo xam ne bëgg naa ko leeral léegi léegi ñi rek que am na complice administration pénitentiaire euh, ñoo koy jàppale ndaxte.

Euh, centre pénitentiaire bu mel nii nga fexe ba génn fa te kenn téyew la. waaw effectivement man yàgg naa ko wax ñi nga xamante si ni daanaa déggoo ak ñoom yàgg naa leen wax ne leen euh, man fi ma nekk amul sécurité amul sécurité donte ñoom nag contraire lañ jàpp ñoom jàpp nañ ne sécurité la mais man man gëm naa ne amul sécurité te gëm naa ne à tout moment muy heure euh, chaque heure nu et nuit et jour.

natt. noo noo rëcce nan nga rëcce. waaw bi may nekk foofu noonu maa ngi euh, si chambre bi ma nekkoon chambre mi nekk euh, deux mètres vingt sur trois mètres dix am benn aération quatre vingt et quelques centimètres ou millimètres je ne euh, am ñaari lal si biir maa ngi fa nekk man ak benn ko dotine am malien la. Euh, ñu ngi koy topp affaire terroriste waaw mais ñun ay xale lan ay innocent lan aussi te comme injustice la moom lay xeex mënoon naa faa quitter ànd ak moom génn ak moom mais boobaa dootul nekk injustice bu damay dee xeex sama injustice ba pare tooñaale parce que damay génne ko wut a génn. mais noo def da nga gas da nga toj comment le comment laa soxla. non non gasuma euh, aération dafa am dafa am fer fer euh, bi ñaari fer la moo cale euh, moo baal aération bi ak benn grillage bu nekk si biti fer bi man moom laa dindi si guddi gi si moment boo xamante si ni maa ngi nekkoon grève de faim toog xalaat ba sonn sama xol boon injustice bi ñu jël ko sama kaw te teg ñu ko fenn te benn nit moo ko waral loolu nag moo ma touché yóbbu ma foo xamante si dem naa ba sama euh, euh, sama réserve dafa dem ba jeex parce que depuis des années yàgg naa am possibilité pour ifaade foofu mais man dama ne affaire évasion laa bëggatut a duggati comme opinion publique bi comme lu bari comprendre ko te man damaa yaakaaroon ne sax ñoom dinañ comprendre mais lu bari comprendre ko mais bi ma demee tam muñ muñ muñ muñ muñ ba sës xam ne carrément lii mooy seule option boo xam xamante nii man si am na a jaar xeex sama àq ak yelleef ba jot si. alors Baye Modou Fall ñu ngi lay ooyee Boy Djiné déjà tur boobu fan la commencé. waaw am nga affaire Boy Djiné loolu dafa yàgg te ay ay tur yu bari la sax am ay jamono doon na wax Modou Djiné benn jamono ñuy wax euh, beneen tur am na beneen tur bu ñu doon wax am ba tey ñi ngi wax Boy Djiné moom tur yi moom day chaque jour day changé mais mi mais mi ngi déparé police centrale en 2009 léegi nag bi coow amaatee retourné seen kaw après si lañ def benn pièce jël ay yére yu ma soloon ak ay monok teg ko si biir gér bi siiwal euh, si sama tur que ne jinne la damaa soppeeku léegi nag foofu la turu jinne départ ba tey te xam boobu tamit si euh, si laa gënoon ne xale amu pour dem si presse bi jéem a leeral mais dama jàppoon ne lu ñuy wax nii bàyyi comme jàll la. donc da nga jàpp dañu maquiller dañu maquiller sa euh, rëcc pour sauver seen honneur. waaw effectivement noonu demee parce que xam nga toujours toujours moom ñun ñooy perdant ñun ñooy perdant ñun. Euh, baadoolo yi ñun population bi parce que depuis boobu bu amee amoon lancé woon ay ay ay ay ay poursuivi mais amul kenn koo xamante ji dañoo jël mën a def te ko sa yóbbu la kaso mais mais man nag lañu visé yóbbu bi te li si gën a doy leen retiré waat seen tur ñoom ñëpp génn leen léegi même sama benn tur moo si nekk. ok man dama bëgg ñu gën la xam réellement alors li ma la laaj mooy est-ce que def ngay étude. parce que sans nee nga nous dañuy la science ban ban sa métier. Euh, technicien quoi si informatique ak électronique ak ay maintenance mais finalement sama xel aussi dafa bagage yu bari yalla dafa may euh, rek mm-hmm. rek dama man parce que français. jànguma kii alxuraan laa jàng mais français yàlla dogal na man maa ko jàngal sama bopp comme yàlla def mën naa liiran toog yooyu noonu euh, moment bi may nekk si bi fii nga xam ne dama sama xol da bon injustice bi am ak traitement yi am ak yooyu noonu léegi chaque jour damay bëgg di bind leetar accident et juge bi fi nekkoon ak le parquet di leen wax seen injustice yi ñuy def léegi nag euh, leetar yi ma doon bind da doon violent ba euh, directeur bi da siy mujj da siy tiit. dinañ ñëw loolu dinañ ñëw si loolu léegi euh, li ma la bëgg a laaj mooy euh, am na jàpp yu ñu la jàpp yoo xamante ne am na sax boo xamante ne dañu la filmer eh bien euh, pourquoi yow nga décider sa intelligence bi nga wax ni moom nga am nga orienté ko ci banditisme. waaw affaire bu affaire bu affaire bu ma bëgg a tontu noonu parce que affaire banditisme moom la ñuy wax parce que man man munu mënuma xam lan mooy lan mooy ban lan lay ñuy tuddee banditisme parce que banditisme moom da benn simple expression la bu ñu utiliser rek parce que man amul benn acte banditisme bu ndaw ndaw ndaw bu may def. jàppewuñu la sàcc wala lu koy niru. waaw xam nga affaire lu vol man moom la ma yóbbu woon prison euh, si loolu yoo xam ne moom la ñu si deux mille vingt nii parce que tuuma la mais boobu nag presque dafa am bu si bu si bu si joué boo dafa am bu parce que rôle eh, retenir contre moi te dañoo raisonné mal foofu parce que Ben nit la boo xam ne am ñu mu yore xaalis benn bu seen alal muy jaay mais finalement moom dafa tëdd si bi di di ba contre ko ba mu لكن بين اجدان بو أن نيوشي رك مو بروفيتو سي تورو بوي نينا خايس مو مخو جول مي مالوروسمان تريبينال لو ييب ليرال نكو تم نان با خامني كي لي وخ اي مونتاج لا مي امنا بن انسيدان بو نلو فيلمي غاي جول نيس با نو نو نو مولول موشي maanaam moom de dafa am xaalis boo xam ne dafa ko yoroon benn usine xaalis bi de de daf ko daf ko daf ko ko si boppam. Mm-hmm. dugg si beneen côté ba pare ko si collé sama tur. est-ce que mën nga est que yow mënoon nga prouver loolu parce que nee na yow da nga ko am ndam si kawam. malheureusement yàlla dogal na loolu mooy sax amul parce que man euh, doolee xool avocat yi ma doon défendre ba léegi nii ñoom ñoo ñoo may défendre muy maître Ablaye Tall maître Doudou Ndoye dafa ñëw relayer sama dossier wax man maa ko sàkku si moom. amul ko jóge woon tugal. maître Dundoy moo ko engagé indi ko. parce que dafa ñëw maître Dundoy man maa ko woo téléphone euh, benn benn affaire benn traitement laa laa laa ko doon laaj. parce que moom dama gis lu code pénal yi livre code pénal bi dama yàgg gis turam si kawam. ma yàgg am envie nag pour que rencontré ko rencontré ko ak wax ak moom bis jot nag ma seeraan ko télévision Walfadjri ñu invité ko bi pare foofu laa lijjanti numéro ma woo ko pour am ay yenn mbir yu ma ko laaj ci code pénal bi ni ngi koy traité yooyu mais man ma ko woo expliqué ko euh, mu ne ma dina wax ak sama avocat li ma ko doon laaj sax muñ ma ko woo. finalement ngi demaat ba mu ma benn saa moom mu gisante nag sama avocat Ablaye Tall waxtaan ak moom ba Ablaye Tall ñaan ko ndimbal ne ko na ñëw jàpp si dossier bi parce que injustice totale am te dañoo jaay doole dëgg dëgg parce que saa dara lu néew justice loolu nag moom comme maître Doudou moom révolutionnaire la moom moo ko dugal si dossier bi volontairement man bi muy dugg si dossier bi ak li mu si def yëpp yëngu man benn suur lan ma woo tribunal moo ñëw war a taxaw jugement mu ñëw fekk maître Doudou Ndoye toog mu ñëw laaj mu xaw ma sax ana bàyyi Modou Fall ma ko maa ngi nii mu ne ma tekki sa xool ma xool ko mu ne waaw man maay maître Doudou Ndoye dama ñëw uniquement pour yow su mu woon naa sama robu yaakaaroon na ne tribunal bi man pare naa si dootuma si dugaat mais grâce Euh, yow yaa tax ma soxal sama robu ñëw uniquement pour dimbale la déplacé naa benn avocat depuis France indi ko fay naa ko xaalis bu bari ngir yow soxla ma dina jox ma dërëm fay mu nekk surprise bu grave man aussi loolu nag moo gënoon a xawoon na coincé si biir kaso bi. alors lan lañ la tuumaaloon si moment boobu noonu exactement lan fan la injustice bi fete woon. waaw parce que boobu mooy dossier Faboro Konaré bi ngay wax nii affaire Solida boobu noonu ngay wax noonu. moom la woon mais dafa am yu bari yu ñu si kolewaat. parce que daan euh, xam nga booba dama évadé woon prison Rebeuss bu ma évadé prison Rebeuss euh, si moment yooyu comme ni mu demee nii rek xam nga doo évadé génn fii war a taseeg di war di wadd si dimbali ma am benn incident bu ndaw bu ma am euh, war am benn collision avec les les quelques éléments pénitentiaires administration pénitentiaire diggante boobu nag si la partenaire man ma mel ne kuy révisé wu si biir boutique ma foofu pour mel ne ku fay saw pour révisé wu pour ñoom ñu passé pour mu génn mais diggante boobu benn temps pour que ñoom ñu jàll ma man mën a génn dafa nekkoon benn lieu bu la lënd yi sama bopp yëpp ma xamee nag léegi léegi li nga doon bay day am coow day am loolu dugul si bitigu jaamu di fa dugg ba ay di fa lënd yooyu noonu finalement police ngeen mujjee ji loolu laa doon bañ ma ne ko comme demee noonu naa toog camouflé wu fii ñoom lu tëjee man gis naa benn élation moom ma jaar génn ma jaar fi génn finalement noonu la bi ñu tëjee noonu sama téléphone fay na il faut ma woo kenn ko xam muy ñëw nekk foofu noonu du ma génnee ànd ak moom dem parce que bugguma génn di traîner noonu ci mbedd mi euh, si laay tourné xool ndax mën naa am chargeur foofu benn câble bu ma mën a branché sama téléphone mu tàkk mu mën a woote yaa dugg bureau bi ma duggee bureau nag wax effectivement am na benn tooñ mu ndaw ndaw ndaw bu ma ko def comprendre mais nag moom dafa jël profil. loo ko ko def. non parce que bi ma ñëwee bi yoon dama toog ci siège jël câble bi branché ko sama téléphone bàyyi ko message ma teg noonu bi ma tegee noonu moom à la côté ñu ngi fa def ay sachet yoo xam ne xëy xaalis yu baree baree bari la mun la jar foofu noonu maa ngi taxaw nii di xool defuma daal di xaatul bu téléphone am benn pourcentage bu tàkk ma jël benn mbuus bu ndaw nii téye ma gis ay pièges saisants yu bees léegi nag injustice bi nga xam ne man moo ma yóbbu woon kaso ba tax ma évadé ko rëbës loolu dama si amoon benn rumeur que ne chinois bi nga xamante ni nii ñin jàpp ba tax ñu tudd tudd sama tur chinois yooyu dañuy trafiqué ay pièces saisants dañuy trafiqué quantité pièces saisants yu bay dugg duggal Sénégal te loolu euh, autorité autorité parquet bi xam na ko. balaa ñuy sori euh, bi nga duggee si bureau bi euh, chargé sa téléphone gis money bi gis xaalis bi après. noo mujjee xaalis bi. waaw léegi nag donc pièces yooyu nekk foofu dama ci tànn benn sachet bu bu bu bi gën a ndaw téye ko sama loxo ni léegi bi sama téléphone euh, chargé ba fees bi may dem damaa yóbbaale mbuus boobu. parce que. ñaata si nekkoon. non bariwutoon bariwul parce que moo moo nekkoon mbuus bi gënoon a tuuti si mbuus yooyu. bariwutoon man juste juste rek dama soxla woon bi xool ndax si pièces 500 yooyu noonu. suñ euh, chinois bi nga xam ne moom la gaa yi di jàppal tànk ba tax ñu jël ay doomu Sénégal yóbbu leen kaso damay yaakaaroon si faux pieds sénégalais yooyu mu defar ci la bokk man sama xel moo ñëw te comme amu temps toog foofu noonu ko xool ak yooyu may xaaral yëg yëpp du may amee a xool euh, foofu pour euh, jéem ay éléments de preuve. non non du woon wut ay olof noonu dama fa révisé woon rek incidentellement.

xam nga alkaati yi wala gendarme yi ñëw ñu rek ne la népp yóbbu rëcc nga douze fois kañ nga kañ nga njëkk a dugg kaso lan ak lan moo la yóbbu woon kaso. première fois may dugg kaso boobu j'étais mineur Diourbel la woon. Diourbel la woon faat naa yi seet woon 2016 je pense 2016 la Diourbel la woon euh, booba. amna na site internet boo gis mo bin ko sax benn dëkkandoo moo ko jox television mo daw ak moom mais yoy amul lol ay ay rumeur la rek man euh, dafa am ku ma doon liggéeyal xaw man technicien laa woon te yalla dafa ma dimbali man préparer matériel yep nak ngay chef dama man na préparer te jàngoo ko fenn. non si defna euh, defna dama si am don dama si judduwaale am si don mm-hmm. léegi nak ma dem ni gën ko travailler si def fi euh, si yenn patron yi di gën jang mi ci foofu. am na yoo xam nag moom mën naa koy defar sama pour nekk kër ga di defarantu ak yooyu di di dimbale citoyen yi yi dëkkandool mooy vaccin yi di leen defar seen ay bagage yooyu di leen ko jox nag am na euh, koo xam ne moom moom engagé woon ñuy liggéey war mu jox chaque jour dix la may war a fay ba pare ma may jox logement jox ma moto bu may wàcc ak yooyu mais comme yow xale laa woon man affaire métier bi daf ma neexoon rek ma koy def mais du question que dama si yooyu am naa ko chaque jour dix millions jox ma wax léegi de ko garde du ne ma soxla ko jox ma lépp waaw non chaque jour liggéey muy muy def si boppam bis jot ma soxla sama xaalis ma ko jox mu ne yorul xaalis ma seet yoon loolu soxla naa xaalis urgent urgent xaw ma sax ñaata ma yor parce que bari woon na chaque jour dix laaj ko amoo ko ci loolu la amee problème nag ma saisir évaluation ci place am ci leen ma yóbbu ak prison loolu moo ma yóbbu kaso saisir boobu moo ko yóbbu

mu ñëw ñu ko naa ne ma ciment mu ne ciment dafa bari rek dagg dagg kii bi seng beeg jaar si kaw dem sama yoon waaw léegi nag nekk foofu noonu di dem ak ñëw des fois ñu jàpp loolu boobu affaire mineur rek xale laa woon rek jamono boobu noonu. waaw donc yaa saisir te amoo droit saisir comme ni nga ko wax ñu tëj yeneen yi. est-ce que yow da nga jàpp ne à chaque fois dañ la tooñ walla effectivement doon nga def euh, loo xamante ne nii yoon daf ko aaye. waaw xam nga man très sincèrement on parle xam nga man da man dama yàgg wax ne. Hmm. man sama wàll boobu man man ñi ma xam am na ñenn si yéen sax yenn sunna si man dan ma ko seetal man du ma fen doomu aadama laa simple ba pare aussi tamit am na lu bari dama dama ko may man lu bu baax a baax a baax a baax a baax si may def yëpp damay tooñ damay bëgg tamit du ma ñëwee taxaw yaa tooñ mais a ñëw maa tooñ toujours kenn musuñu fekk man foo xam ne tooñ tooñ naa bay taxawee di mus kenn musu ko fekk tribunal yi ma maa dem yëpp moo tax ma ne police ak juge bi doo dee xool ex-doyen de juge bi may mujjee wax ak moom juge am nee ko mu toog ma toog ma ne ko yow juge nga te am na loo xam ne warul la parce que juge dafa war a tëddee njaaxaandaay nekk ci diggante askan wi ak parquet mais juge warul toog parke wala état lu mu bëgg nga defal ko boobaa yow da da ngay tourné wor Sénégal kii bi maanaam euh, population bi. mais dis-moi est-ce que pakastalu am na quoi est-ce que quand même nga def loo ne nii xam nga saisir bi xam xam nga ni warul. def nga ko parce que da nga jàppoon dañ la tooñ nga saisir. est-ce que am na yi est-ce que yeneen yi tax ñu jàpp la est-ce que am na si yoo xamante ne aussi yow en âme conscience xam nga ni warul woon. waaw moom laa wax moo li ma wax nee man nee naa la nit laa de des fois ma tooñ des fois laa wax hmm. mais lu néew laay tooñ maa lay waatal. xam nga gars yi jàpp na ne ay kaso yi kaso yi kaso nga def xam nga Dakar. lan lan ngay ooyee tooñ. waaw mooy xam nga rek des fois nga dem gis ni dox lii waroo koo ko ko. par exemple jël alalu jàmbur. waaw xam nga man jël alalu jàmbur moom. man daanaka man man personnellement mosuma ko def. mais souvent àndandoo yooyu damay ànd ak ay àndandoo wala dara àndandoo yooyu def man man bu bokkaale sax te projet mooy man damaa doon nit koo xamante ci nii cool yi lu mu rëy lay lu mu bëri bëri bëri man doo ma ko jàppee rek damay bëgg a safoo lépp man de dem dem dem kaso donc en gros mosoo sàcc ci li ñu la jàpp yëpp du yow yaay auteur principal bi. effectivement noonu la demee mais problème bi mooy man lañ xam man la ñuy visé rek man la ñuy jàpp man la yem tey ñun ñëpp duñ àndee def dara. bàyyi moo du la xam parce que policier man lañ xam. da nga da nga weex donc. waaw très bien léegi yi ñu la mës a jàppee yëpp ban ban mooy bi nga xamante ne nii euh, comme doo fen moom nga. moom nga nangu ne yaa ko def. waaw parce que Fabien comme li ngay wax nii bii nga wax nii. bu euh, soldat mm. bi. bi ndaxee traitement wax naa ko man carrément nee naa leen mais man maa tooñ. mais nag na yi yam fa mu war a yam. Mm-hmm. te nan wax tamit li am. yaa jël. non non moom dafa sàcc moom si wàllu boobu moom dafa sàcc moom dafa jël sàcc alal jaamu tëdd si. ba pare yow tegal ko sama tur. comme ba paré profil na dem jël presse bi wa bàyyi mu il m'a il m'a détourné mis à genoux complètement comme la c'était employé de combien de employés 27 employés man maa ngi employé lopp lolu comprendre nga kan, léegi yow am nga talent hmm. am nga talent est ce que avant ñu lay japp parce que bo ba neug ni yagna hmm. am na si loo doon yëngu est ce que am nga activité bo xamanteni ni si ngay si ngay la ta ñu ñëw ci àndandoo yi parce que àndandoo yi ñu ànd ak yow yow yaay nangu ànd ak ñom waaw non man wax naa la am am naa sama métier sama métier rek déjà mën na ma servir lu nekk benn homme d'affaires laa damay voyage bu daanaka fu bëgg fu bari dama fay dem si àdduna bi di dox sama samay samay comme comprendre la loolu mi ngi may am lu may lu may lu ay revenus yu may indil aussi euh, si côté métier bi man transporteur la transporteur la maa ngi ko donné sama papa. waaw. am ngay oto waaw actuellement na actuellement am na ay camion yuy daw doomu Sénégal yi ñu ngi ko yore si liggéey maa ngi ko de donné si sama papa depuis. donc yow employeur nga. employeur waaye <coughs> am na ñu bari ñu ma employé am na yeneen même yeneen yi façon liggéey sax yoo xam ne maa ngi si investi sama xaalis ay doomu Sénégal yi ñu ngi siy liggéey mais je préfère garder ko parce que comme gars yi ñoom dañuy wut ay prétexte pour di xool yoon yu ñuy jaar pour mën di téye sa alal ak yooyu comprends nga loolu moo tax. mais man malheureusement man mosuma dëbb kenn sama alal parce que man lu may wax gars yi rek man lu ma yor dama naan leen lii may borom. kon ci tënk mbooleem li nga xamante ni moom lañu la mës a tuumaal fenn nga nangoo ne foofu nga juume mooy ci affaire solidaa bi est-ce que loolu la ou pas. waaw mais Sodida bi man d'accord naa li nga xam laa def. léegi la moo tax yow Baye Modou nga am sa métier am sa business. di ànd ak ñoo xamante ne dañu lay dugal si tooxi doona comme yow nee nga lu lu am yaa koy déggoo. waaw mais loolu lu yàgg la woon quoi. loolu lu yàgg loon jamono bu yàgg lool boo xam ne si ñii noo doon ay xale dugg si àdduna commencé di jéem a yoon mën jaar bu mën a réussir xam loolu la des fois ñu àndandoo xale xelu xale toog des fois dañuy def yoo xam ne sax affaire xale rek moo ñu si dugal mais du bëgg dara loolu la mais di boobaa léegi yàgg na amul leneen loo xam ne def naa ko parce que loolee xool man 2008 lan ma arrêté woon ci problème mu vol boo xam ne si nii effectivement lu am la mi nga amee woon lago 2 comprendre nga ak mbuur euh, di jàpp si loolu mooy indi woon problème central bi léegi problème central bi mu amee nag ba politiciens yi ñu ñu ñu nekkoon foofu politiciens yi fa nekkoon commissaire ba ñu tuddee si xaalis feeñ na fii xam nga ba léegi nii dossier boobu nag léegi nag moom moo taw a jeex. Mm-hmm. léegi benn affaire foofu dafa am benn acharnement bu doy waar boo xam ne man tey moo causé yëpp xam nga dossier boo xam ne yow ñoom nee nañ man damaa jëloon alalu jàmbur depuis 2008. plaignant bi moom justice la yaakaar pour que mu doxal ko àqam. dañu am saisir na justice depuis 2008 toog courage rabaa di xaar justice mais effet pérennat boobu justice moo koy dimbale. mais est-ce que est-ce que actuellement nii euh, pare nga pour delloo ko li nga ko li nga jëloon. non non moom xam nga bi loolu amee incidentellement. incidentellement. comment ça incidentellement. maanaam euh, jógee Guinée-Bissau jamonoy xale ñëw jaar euh, Mbour. ñu ma fa doon am lu ma doon jaay finalement ñu fekk gars yi wàcc te mooy sama oto mi ngi paan maa ngi jeexal xaalis comprendre nga moom moo am benn bu mu def rek ma réussir ko jël alalam mais bi ma jëlee alalam bi ma wax ay wax yi jël alal ji def ko nii yëpp tàppee la leneen ak def lee doomi un mois nga fi am lii dama dama leen a nax ba jël sama téléphone woo boom xaalis bi ndànk ne ko man maa juróon sa xaalis jàpp na ma pays central ñëw ngi jaar sa xaalis yow mi ko liggéeyoon nga jariñoo ko après moom ñëw na jël na alalam daf koy deseelu ma kenn lenn coow am nag léegi waa dig jàpp ma pour même affaire parce que ñii dañoo yor affaire Lagon 2 bi ñii yor affaire mbuur bi ak diwaan ci Dakar léegi nag ñii ñu ngi may affaire mbuur bi ñii jàpp woon nañ ma si affaire diwaan électronique ak ak ak mbuur waaw léegi ñii bi ma bàyyee ma xëy suba ñoo jàpp ma waa dig ma nekk ndig ñu tàppale ba guddi ñu yóbbu ma police rëbës pour ma fanaane foofu parce que dig amul cellule yóbbu ma police boobu moom fanaane foofu te police boobu ñoom élément yi ñoom jàppoon déposé ma central ñu ma yow noo def ba jógee central comprendre nga non bunt bi doon génn gars yi ma ma ma raam génn que su pour bañ a di citer seen tour di yàq seen liggéey waa illaa may nii ay coono parce que amul ma benn intérêt comme affaire xale la man liggéeyuma dara amul benn charge yow ma jabal yoruma dara comprendre nga jamono boobu léegi man naa ko nangu rek teg ko sama ba dem tinmaa lu mu sam baax na man laa ko jeex mu ne damaa daw mais après nag bi ma jëlee stratégie boobu tamit pour que juste rek jéem a étouffé coow li jéem la protéger ñoom ñi ma si mën a bañ a wax dara la dañ ko dañoo profité jël coow li nag ñu bëgg koo def benn maanaam protège pour défendre seen bopp. Hmm? amul benn yoon boo xamante ne nii rëcc nga si kaso fekk dañ la dimbali. non man police centrale laa ma si jógee joxe fa xaalis ñu bàyyi ma dem ba si ñoom jàpp ñoom bàyyiwaat. mais kaso moom dama lay wax benn affaire. xaalis wala wala waa ji moo récupéré si xaalisam. dafa léegi non ñoom bi mu jëlee xaalisam ba pare. parce que ñoom xaalis boobu boobu noonu bi ki ma si waxal ki ma xaalis boobu noonu moom la waroon a jël. pour que bàyyi ma a bàyyi parce que annoncé na procureur ne ma jàpp nan moom mi ngi xool yan pexe léegi nu mu mën a def bindal ma leneen ak yooyu noonu mais man maa d'accord di fa bàyyi xaalis ba pare di dem kaso moom effectivement bi mu jëlee xaalisam moom dafa jël xaalisam delluwaat comprends nga

waaw affaire Gàmbi moom man damaa évadé fii mënuma toog si dëkk bi ma dem Gàmbi gendarmerie Sénégal bi ñëw dugg Gàmbi waa section recherche ne dañ may yàpp te boobu jëluñu dul auto mission te règlement IMOA mayut benn alkaati muy jóge si réewam dem si réewu jaam jàpp nit lu dul que dañoo am coopération judiciaire wa ilaa ñoom président yi ñu déggoo ko

ñu ne coup d'état am na ku kat moo ko def ñu ne Sidiya Bayo si la bokk mi ngi Sénégal Gambie bind nañ ko Sénégal jox ñu bañ a duñ ko jox. moins une moins de quinze jours man ma dugg fa Ivoire dugg foofu noonu man pour réfugié wu foofu noonu ñoom yow seen alkaati. léegi xam nga noonu coow li muy bari bari bari bari yëpp te wax dëgg la mais Sénégal tooñ. Sénégal moo tooñ parce que Gambie duggul fi ay alkaati ne day jàpp Sidiya Bayo duggul fi ay alkaati ne day jàpp keneen. mais Sénégal moom moo Sénégal moo yabal ay ay LKPM ñu dem foofu nii demee jàpp. woon benn lien boo am ak jàmmeew kii que ce soit. non loolu loolu moom lu gars yi di di wax saa man man du ma am lien ak benn président parce que man sama wàll ba man sama deret mu mu mu jege nguur man ji nguur mënu ko def ba sax su ma koy sori. nguur yàlla moo ma dogal nag yàlla moo dogal nguur gu yàlla nguur gu gu ma nekk si sama réew sax ban xaw am ay incidents yu ndaw nii sax. maanaam da chaque jour doo ma du ma doo ma sonal rek sa finition du baax. alors Baye Modou euh, lan moo tax cette fois-ci nga rëcc toog si réew mi. waaw non xam nga comme loolu moo tax foofu laa euh, aspiré woo parce que comme jege nga fi départ dem gambi juste pour réviser wu foofu noonu benn la setan dugal sa réew ñu jaar fii amplifié ko yóbbu ko foo xam noo dem na fee digga def ko diggante réew réew réew léegi damay toog Sénégal tey bii pas Sénégal bii laay toog. siiw siiwul justice ba xam nan lay muyee sama mbir comme ñoom dañ ne du ma mayee liberté provisoire damay daw du kenn du ma gis moo tax nangul ma mayee liberté provisoire tey ma kaso bi léegi man dama jël sama propre responsable man évadé sama bopp toog di yéen si ànd sama dossier saa bu ñu defee seen enquête ba pare saa bu leen neexee nag fii ba heure bu neex baax na saa bu defee sama enquête ba pare defal seen ordonnance de renvoi renvoyé ma tribunal criminel ak mën naa wax sax criminel parce que gars yi moom criminel lan lan bind sama man. criminel parce que nee nañ bi ngay ñëw bi ñu lay filmer da nga yoroon ay armes. arme fan nu may filmer fan. Euh, si solidarité loolu man mosuma yor arme te affaire soldat jeex na bu yàgg loolu jeex na atte nañ ma si ba seetal na ma si yu bëri ba naan ne deux ans si tooñ mm-hmm. si leen yi si defoon yëpp lépp lan écarté fii ordonnance de renvoi bi nga xam ne moom la ex doyen de juge bi defoon. lu mm-hmm. ma la ko woonoon da nga naan non non parce que man am na benn avocat boo xam ne bo moy première fois mu may doo gis moy première fois mu may près d'elle té état moko servir d'office mm-hmm. moko jox d'office mais mom bi mu ordonnance renvoi bi nee ma man ak juge bi daa quelque chose néna ma amna amna amna ben juge bu am suñu diggante mm-hmm. té man musuma ko wax sax lool té effectivement lool mo wax mo am mm-hmm. ordonnance mais heureusement man tribunal fi comme li gars yi man damay wax ba contrairement par rapport à ñenn ci euh, population Sénégal nii li ñuy wax quoi. que ne justice bi baaxul dañ koy utiliser man gëm naa ne justice bi li ci ëpp baax na waaye dafa am ay côté yo xamné ni dafa négatif de trop. pour yow juge yi ñu def sen liguey correctement. non du juge parce que donné juge juge yëpp ngay wax. Hmm. mais amna ci ño xamné man sama wàll boobu man gëm naa ne dañu seen liggéey correctement parce que man prison bu ma fa toogee comme des fois gars yi duñ kaso yi nii sax ba maire waa non justice lii xam man damay wax leen carrément tribunal du demee ba tribunal des yi ku fa dem na sa xel daal lépp loo def rek moom moom ngay mérito coow mënul bari président de la république bi nga xam ne mooy réew mi du bëggoon ñu condamné la du toogoon ci tribunal bi di jooy tey duñu war a bàyyi dañ lay bàyyi am na benn journaliste boo xamante ci ni mas naa dégg mu nekkoon lam Fall def doon jaay sonal ne voilà kooku ñuy wax booy jëni teel doon jàngal si tribunal bi waaye mais population ne bu ko bàyyee parce que ñu ko bàyyee day defaat lam defoon xam nga mais dama wax kii moom ndeysaan lii mu wax nii wóor ko sax wax. yow yow tu n'es pas violent mosoo mosoo mosoo euh, sàcc ak ay ngànnaay. non non man nee man violence si wàllu boppam man man dama ko contre man ku koy contre man maa gën a contre.

ma ne dama yor arme jëmale ko luy dund ngeen mosuma gis ma agressé kenn mosuma gis ma violé kenn mosuma gis ma jaay drogue fi ngeen yu xeetu drogue yi nga gis àdduna bi yëpp fi ngeen du ma ko romoon fi mënu wax leen lii drogue si dara innocent laa si poon sax mënu ma ko tox fi ngeen togoon nii ngay tox cigarette sax fi ngeen léegi sama bopp commencé métti boîte de nuit du fa dugg boîte de nuit doo fekk doo ma fekk si ay làmb doo ma fekk si ay fubal yu mag dara man chaque jour mën naa nekk fu calme toog la ingéo yor samay xasaay di di jàng di jàng alxuraan ak nekk si internet bi chaque chaque instant. donc ku la ooyee bandi dafa la tooñ ci sa gis-gis. waaw non parce que dañ la dul xam quoi xam nga rek xam nga rumeur moom du kenn ku ne nu ne ngay interpréter situation yi mais du affaire bandi man affaire ma nu ma toogee ku ma si taw dama lay jéem a découragé parce que dama lay xamal ne fekkee yàlla dafa def yow nattu sax ba ngay jël àll jàmm wala mais du fekkee yow nga bàyyi moo gën fekk mënoo ko bàyyi tamit fexeel ba doo ko dee def jëlal alal jaam nga dem rek te bu ko def leneen waaye man mënuma d'accord nga ñëw ne da ngay jël alal jàmbur ba pare finnaal ko wala nga gaañ ko méttital ko yooyu waaw si yow sa dund surtout euh, sa péripétie yi avec la justice non non parce que man amul leen loo xam ne man maa sababu lépp yàlla moom moo ko dogal parce que xam nga kii yow li nga def am si conséquence bu né bu négatif loolu ngay rëccu waaye man defuma parce que tey doo dee a yàgg si kaso yi si Sénégal si doot nga xam ne ñoo nekk si position jàpp nañu yoo euh, bi àtte nañ ko ba tëj ba mu jeex fi mu ne affaire politique moo am nii xam nga parquet di def lu ko neex sama kaw bind nañ góor bind droit autorité yi même ba si ba ba bind nañ leen. y a aucun dossier bu tax jamono ji ñu téye si kaso bi. man aw benn affaire boo xamante si nii war naa maa tax ñu téye ma mais dañoo génne lu passé ben dossier bu passé. ben dossier moy dossier bi wax ni affaire lagon 2 bi ni xam affaire lagon 2 bi 2008 la won mm-hmm. le problème amone amoon. le 16 deuxième mois 2009 man sen ma arrêté. ñu ma arrêté Touba 16 deuxième mois 2009 bobu sen ma placé mandat dépôt. wa dit ñoo ma indi woon fii ñoom Pape Gueye ñu may dégg moom mo moom yor affaire criminel bi légui cyber criminelle bi. ñu may dégg ak ñoom Diallo xam nañ bu baax ñoom ñoo ma jël defee defeere ma ma démé doyen des juges moom moom ma man mandat dépôt sa kii bu njëkk bi maa sama jëf bi ma placé mandat dépôt ñu yóbbu ma si prison bi boobu am na cinq person yoo jàpp na leen ñu ngi woon foofu bi ma ñëwee un mois avant un mois si la yàlla dogal euh, ñu woo ma enquête muy premier avril bi bi ma ñëwee premier avril léegi dossiers yi noonu ñu ko boole noonu bi ñu commencé woon central te àggutoon moom la ma placé woon mais beneen bi waa dig defar nag moom boobu àgg na parce que waa dig moom bi ma central bàyyee ñoom seen enquête dafa amoon muy jeex seen ma bàyyi ma ma jàppee enquête na ba mu jeex ñu xamal nga bokkal problème bi d' accord mu defal ma mandat de dépôt première affaire 2009 boobu ma demaat quelques jours ma ñëw mu def euh, interrogatoire am mu ak ñi ma bokkal ñëpp mu tëj dossier bi defal ñu ordonnance renvoi yóbbu ñu tribunal correctionnel mais boobu comme mineur laa man mu maa di tribunal mineur tribunal laaj ci sama bulletin de naissance boobu sax bu ne mu nekkoon sama avocat yàlla na ko yàlla yërëm mu dem jëli sama bulletin de naissance ñëw dugal ko si dossier bi jour bu ñu war a atte juge bi gis ko ne ma bàyyi Modou Fall mineur nga tribunal bi la mais da ngay taxaw nga témoigner gars yi si wax ñu taxaw ñu témoigner ñu atté ba def délibéré bi délibéré bi ñëwé ñu condamné 15 mois man ma toog si kaso un mois un an après ñu woo ma tribunal mineur mu ñëw taxaw ñu ma une fois sa parent taxaw bu ñu ma laté ma yow dañ ma renvoyé ko semaine prochaine ma woo sama avocat sama ki sama euh, parent semaine prochaine bi bu ñu jotee parent bi ñëw taxaw ñu atté ma def délibéré le 8 10 10 euh, le 8 10 mois 2010 condamné ma 6 mois ci problème waaw ma dem prison léegi nag mu war a jeex ñu war ma bàyyi ñu ne man am na beneen mën a def bu fi des muy mën a def bi juge décision bi njëkkoon a def mhm. te dossier bi complet wutoon may leen noonu lii moom lañ ma atte nii ñu ne non parce que ñun ñaari damay am fii première affaire am fii seize seize deuxième mois 2009 moo waa samay avocat maître Abdourahmane saw di Lening ak Medrame nee nag carrément injustice la parce que instant bi man lii ñu ma bëgg tey fii moom lan maa tey ba ma ba ma tëdd koo pare gars yi bind procureur général ñu dem cour cour d'appel mais bi ñu jëlee dossier yëpp xool ko comparé ko xam ne lii effectivement at na ko pare procureur euh, général boobu moo defal benn requête jox euh, le parquet parquet jësee na ko prison bi rapidement bi ñu ñëwee si prison bi heure bii nii rek ñu woo ma ne ma jël seen bagage ma jël seen bagage ñu dem affaire jeex tàkk mais bi affaire bi jeexee ba ba ma nekk si biir nekk sama jaamu di commencé sama liggéey commencé investir commencé jël sama yaay employé yëpp ñu commencé liggéey sama alal yi nekkoon si àll yi si sous bi yëpp di kay man day dem dajal yëpp ñu indi lépp Sénégal yi nekk ay camion yu daw yi nekk ay matériel sonorisation yi nekk ay commerce yeneen léegi ba léegi règlement de compte ba amoon noonu ak police bi centrale bi dañul quoi parce benn instant ñu ñi ñu ne waaw dafa am fu ñu kàmm yooyu la fa yoroon réceptionné topp nan la sa oto gaare na fii defoon na ni jàpp yóbbu defeere yóbbu tribunal tribunal bàyyi ngi mat diggante bu gàtt nga ay arrestation yu bare bare mais may leen man du génn Sénégal parce que même bu fekkee nii lay tribunal tamit danaa nangu mu tribunal ko parce que tamit du nangu tamit yaa ngi dégg dëkk ci réew ba pare kenn jóge fee di la xatal naan génn ndax ndax ay situation mel nii non non man moom li ci ma daal xew lépp yàlla moo ko dogal nu mu lii ma dal sama kaw nii du gënee metti si kanam tamit garaawul yàlla mooy buur parce que man gëwuma a lu a luy am yàlla koy dogal. la mooy sa ñi nga xamante ni jàpp nga lañ jël seen alal qu'est-ce que tu as non fi mu toll nii man amul benn mi mu taxaw boo xam ne man jël naa alam man alal kenn nekkul si man maa ngi wax ak yow nii fii mu taxaw ni wax ak yow kenn nekkul si man. donc nee nga saa ñu la oowee pare nga pour génn fi nga laaxu dem uy tribunal eh bien euh, bu fekkente ni dem nga tribunal est-ce que xam nga ni évasion bi benen délit la est-ce que par nga pour assumer Wa waaw xam naa loolu parce que <clears throat> évasion moom euh, mom pénal à part la déjà xam naa mais comme man tëdd naa neuf ans de détention pour zéro génn na ma ngi biti sacrifice même du peine d'amende man man jaral na ko ma sacrifice yow parce que man fim mu damay xex pour Sénégal gépp xam lan mooy dëgg bi lan mooy vérité bi man loolu man loolu la la am léegi donc dëgg bi feeñee pare après maanaam ndam boobu may am si dëgg bi feeñ rek man yàlla la ma après lu teg baax na. si tënk mooy dañ la téye te waruñu la téye. dañ ma téye si téye bu jaar yoon te téye bi ma téye nekkul que ne maanaam jëmmi yoonu judiciaire justice bi si boobu moo doxee noonu. mais ma non non non non kaso amul leeral ñun li ma la wax xam nga ñun ak administration pénitentiaire ñun amuñu euh, relation bu bu ñaaw. relation bu rafet am gis nga euh, le DAP kii le DAP euh, euh, Boucandé moom nit ku baax la nit ku jub la aussi koo xam ne dafa respecté détenu mais li ñuy wax ci kaso yi difficulté yi nekk ci kaso yi métit bi ci kaso yi souffrance bi ci kaso yi yow loo ci mën a témoigner. waa xam nga kaso yi am na ay souffrance bi yooyu yeneen côté mais man côté bi ma nekk yooyu amu fa. ñun ñoo ngi nekkoon ci ISS mooy fi ñuy wax haute foofu dix chambre rek la chambre bu nekk deux personnes lay def. kon haute sécurité nga rëcc nii. waaw effectivement effectivement. <laughs> li moo tax ñu naan la booy jinne waaw mais xam nga du jinne quoi xam nga ñoom jinne moom dañ dañ dañ koo tegoon ci cadre soppeeliku. waaw. mais euh, pendant quatorze ans ñi ngi wax soppi soppi mais ba léegi amuñu mënuñu génne benn virgule boo xamee moom day firndeel ko soppi ko. Mm-hmm. parce que yow foo jaar génn ki trace ba des fa da ngay gis trace bi. Mm-hmm. donc kon xam nga loolu foofu mm-hmm. mooy da ngay eh, eh, ak indistance rek. calcul ak indistance parce que doomu aadama doomu aadama da ngay doo mënee dugg si conscience am ba pare rek d' abord en distance pour pour euh, pour maanaam. comme ni ma ko mën a expliquer ba nga mën ko comprendre parce que baa la booy jox exemple pour Sénégal gi mën a comprendre lan mooy tax saa boo defee ba pare mu jaaxal nit ñi mais xam naa olof bi moom du ma ko mën a expliquer réellement mais dinaa la wax la rek ne la euh, da dañuy dañuy bàyyi xel ci lépp benn faay bu ma doon bu ma doon parce que dañuy nekk ci monde boo xam ne noonu la demee weñ du naawee tong sax weñ bi yaa ngi ci calcul euh, lan la asaar la wala très bien alors yow y a un problème euh, tout allait bien tribunal au long tribunal mhm. au juge eh bien euh, lan du coup euh, injustice bi injustice ça va tribunal ça va Vous xam injustice tribunal man tribunal parce que population tribunal building tribunal vous mhm. mais tribunal dafa bëri de vous parquet si boppam lim jiitee nekkul ne lépp a bon du la bëggee tey ci kaso te wóor na ne yow defoo la mën a te condamné mm-hmm. dañ dañuy transformé affaire yi def ne ne instruction instruction alors euh, léegi ñu war a jeexal euh, Baye donc euh, fi mu nekk nii pour pour tënk da nga rëcc parce que da jàpp ne injustice lañ la téye ci kaso bi rëccoo pour daw justice rëccoo pour daw tribunal saa bu ñu la oowaatee nga dem uyu ji pour taxaw ñu àtte la loolu mooy wax ji. waaw parce que comme li ma li ni ma agalé ko. comme ne la dañuy def semblance. duñ la bëggee tey kaso ne dañuy def enquête instruction. instruction instruction waaw. instruction boobu nañu wax souvent semblance lay doon rek. parce que nekul lo xamé vrai vrai instruction li ci jox la. mais saaga doo dee enquête loy loy wax manam lan ngay enquête ci saga bi. ki la saga bi ngay saga sa lan la tudd sexe la tuddu wala nan la ko waxee wala. yaay la gis wala bàyyi loolu la ñuy enquête mais loolu islam na enquête. Euh, dama la bëgg a laaj un truc un peu plus personnel nan la say parents dundee situation bi nga xam ne moom ngay vivre actuellement. non non ama parents yi day métti lool lool lool lool si ñoom day métti lool si loom parce que dèjà nga toog dégg presse bi gauche droite leen ñu ni ko wax xam nga dèjà ñoom loolu rek daf leen di frappé dèjà day indi ay problème surtout nga nekk benn famille boo xam ne ñëpp ay jigéen lañ man nag maa ciy góor. man maay seen soutien man lañ yaakaar si lépp même du ma nekkee si prison bu lépp fu mu toll nii man sama xel guddeeg ba njëkk si ñoom lay nekk. évasion saa boo demee ba war ko def day metti lool parce que évasion bi euh, maa ngi gërëm dafay depuis janvier ba léegi boobu ba boobu ba léegi mënoon mais saa bu ma naa bañ parce que dèjà euh, am na kilifa yu bari ñu ngi sama ginnaaw ñu ma jàppale ñii maa ngi dégg ñoom téléphone ñii ñi ngi. jël seen alal di def si man ñi déplacé wu guddeeg bëccëg lu ne ñu ngi koy def ak yu bari lu bari nekk sama ginnaaw di ma la ba pare aussi maire bi tamit chaque instant mi ngi jël yaakaar bu baree baree baree bay teg si man saa boo waxee mu doo ñëwee def nii def nii def nii def nii kër gi jigéen yi rek ñoo fa nekk léegi nag ñoom loolu situation bu métti la si ñoom mais da xam ne situation oblige fi mu toll nii eh, doo deewoon tamit mënuñu si mënuñu si dara dañ lay dem suuli te day te ñun ñëpp mu ngi kanam kenn xamul kañ la mën na doon tey mën na doon suba nekk ginnaaw suba. soo si mi ngi foofu aussi. mi ngi si kër ga. man euh, benn enfant la la man maa moom mais dafa mu juddoo sama yëpp sama ginnaaw la la amee mu nekkee si prison bi. Mm. mais man yooyu yëpp man gëm naa yàlla daal gëm naa ne moo bind àddunaam bind ay nitam. te du ñu fekkoon ne dafa tële dara si ñun bu ñu fii nii yàlla tëluwul dara si ñun li mu bëgg lépp mu ngi koy def suba ngoon waxatu kenn ñun dañuy dañuy dépendre rek diko ko yaakaar rek ak diko gëm ba tey. alors pour terminer euh, lan mooy sa dernier message bi nga xamante ni tey moom ngay lancé autorité judiciaire yi wala alkaati yi wala Sénégal. waaw man li may itagé li may lancé moom ñëpp pour ñëpp la muy président beeg ministre baak policier baak baadoola bi si mbedd meeg ñëpp ba si magistrat ñëpp laa koy lancé mu ne man ku bëgg justice la te ku ko gëm laa ko fonk laa mais man li nekk sama xaw du justice du justice règlement de compte la boo xam ne dañ koy jël dëxañ ko ci biir justice te saa bu ndee wax justice la ñuy wax non justice kenn du eh, eh, xaajale kenn ak kenn justice la ñuy wax te du nee justice rek képp kuy léegi justice rek tuddaale lan la mais man sans problème personnel matut ñetti nit ñoo ko seq matut ñetti nit ñoo ko seq. ay firnde. non non man amoon naa dund sama affaire depuis lu concret laa leen wax parce que samay wax koo dégg da ngay xam ne lii mooy dëgg. li ma def lu mu métti mi damay tax ne maa ko def parce que xam naa bu baax sama bopp. nekkuma dof boo xam ne nga nekk ci bi lu ma xamee banque yoruma lu ma am. dama koy jox doomu aadama yi dundee ko. parce que man man gëm ne nit nit si wàllu boppam sa noonu li nga gën a bañ sax.

waaw am injustice bi moom mooy li ma wax rek man euh, seere wu chargé wu ma ko. sécurité bi maa ngi jëm bi laa wax. Hmm. man loolu daanaka man li ma si concerné bëri parce que man du ma ko def. Hmm. te du ma fu ñu koy defee. ku ma xam nga nga koy def man lu ma si mën a wax si rafet bu nga bañ ko def dinaa la ko wax. mais daal li ma xam man moom laa mën a assuré doomu aadama. bépp fépp fu ma teew nit kenn du fa final nit. fépp foo xam ne man man sama wàll boobu sama jëmm ma fa. kenn du foofu fi naan gis nga ma maa ngi nit ku tuuti la aw ma doole aw ma dara mais yàlla dogal na ma am naa kàddu te nit ñi respecté nan ma te amul kenn nag koy taxaw laaj ko si man taxaw ma parce que nit ku man gëm naa ne moom ku gën a ñu gën a bu Sénégal cinq yi fi gën a sévère bu man si laa bokk waaw loolu ma xam naa ko injustice moom kii insécurité moom loolu la alkaati yi ñoom ñoo ko saase dañuy liggéey nañ def li a liggéey mais man moom du ma jël sama téléphone di woo police wala sànni wala kenn naan koy jàpp di wala kaay def laa mais daal képp koo xam ne si man gis naa la ngay def naa man sama wàllu bopp man dinaa jël sama propre responsable ba nit def nag man sama yoon si jaayal say defal leneen lu neex mais doo jël fitna ko si teg doomu yi rek la jël sa arme di ko jëmale nit daa nga jël nit di dara mais doo jëleen fekkee nii nga jël alal jàmm def waaye daal du fi fitna naree bokk man ma bokk si waaw na daal man laa bëggut maanaam euh, loraange nit di ko yëngate ko doomu aadama. bu fekkente ne am na lu ma la laajul te nga bëggoon ko wax mu ñor la mën nga ko wax ñu jeexale ko. waaw waaw comme yàlla dogal na profité woon nañ daanaka li nécessaire yëpp wax nañ ko euh, léegi damay déglu sant la gërëm la du ko fee ñu jéem rek te wax gars yi tamit nee neen daal man euh, lii sama méthode la man man bu ma choisir pour combattre sama injustice parce que ñu ngi koy xeex nu nekk si grève de lañ njëkkee woon booba tey saa du dina ñëw def si li mu fi war a def xam nga woo ñi mu war a woo ñëpp wax ak ñoom woo na ku ne sama problème ministre bi woo na sama problème mille fois woo na procureur général mille fois woo na tan euh, euh, procureur de république doyen des six ñoom ñëpp wala lu amul lu mu def moom DAP mais nag moom ab directeur la am na fa munu fa àgg am na fa mënu fa mënu fa yem moom injustice bi xam na ko injustice bi am xam na ko waaw injustice boobu nag injustice boobu nag moo tax moom benn saa day am foofu du fa day commencé di jël responsable la mu di def waaye nag mënu du moom ni ko baax la gérer bu rafet la gérer kaso yi bu rafet la yore kaso yi même fee doo demee ma évadé nii évasion bi dafa doon loo ne dama ko forcer de mais déjà kiiw sama xol nekkul lu oyof ci sama xol mais dama ko forcer parce que xam nga déjà nekk ak nii. benn temps rek jekki xëy rek def nii. coloré dafa am coloré booy sentir sa diggante moom. coloré boo xam ne dañuy sentir diggante man ak nekk di garde ak directeur bi seere prison bi seere cour beeg na benn coloré bu dox suñu diggante ba nga xam ne si ñoom ñoom dèjà doo demee da ñëw fekk maa ngi da nga yaakaar na benn relation bu dox suñ suñu parents yi wala dara. Mm-hmm. fekk ne ay nit ba pare day day day xam lu bari mais xam nga ñoom it dafa am foo xam ne du tooy am na mun ñu mënuñu fa waxee. coono bi ñu si man ñoom ñu am si daal daj ñu ko si benn dossier loolu mën na benn ne mën naa leen ko seetal te aussi tolérance yi nii torolee ak man foofu noonu aussi ah man man mën naa la waxte ne amul kenn ku nga foofu noonu comprendre mais man maa dem ba benn benn moment ma xamante si nii li may def nii man euh, diis na si man quoi waaye il faut mu obligé def ko parce que il faut ma jéggi leen parce que sama vie moom moo nekk si benn jeu boo xam ne il faut ma ko te méthode bi laa pour def ko kuy wax naan dama leen a corrompre dama def nii gis na kaso loolu lu may leeral gars yi la kaso kenn mënu corrompre eh, garde mu bàyyi la amul benn garde boo xam ne na moom garde si boobu amul pouvoir du bàyyi benn détenu mu génn mënu nekk souvent nag ñoom si seen biir des fois sax ñoom ñooy indi moyens mais loolu ñoom ñoo ko war a bàyyi parce que maa ngi dégg déclaration bi nga xam érab moo ko def xam naa comme de si biir activité yooyu mais yow da ngay jëlaat mbalit di ko tegaat sa kaw kaw kaw. moo benn complice. waaw amul complice parce que man doomu aadama man magum jëm laa damay tàkk di xaar bu baax a baax a baax te lu may dugg ta bala maa dugg si daal damay xam ne lii lu ma mën la ba pare doo ko engagé. lu ma mën la li ko def ba pare doo ko engagé man maa jël sama responsable man maa défoncé relation bi man maa wax jaar génn génn si biti buum boobu ñuy gis mu traîner foofu noonu man maa ko def. man maa jaar si miir bi génn dem sama maa nekk nii si biti léegi nag loolu benn bor la boo xam ne man ak état Sénégal ñoo ko seq mais damaa bëgg mu fay ma sama bor ma si bor bi. état Sénégal. damaa bëgg mu fay ma si man. Mm. boor bi ma ameel. Mm. ba pare ma fayal ko man bor bi ma ko am. <laughs> na ma six ans de détention. atte ma ne ma acquitté naa la bàyyi naa la. Mm. defoo dara xam nga loolu lu doy waaw mu téyewaat ma cinq ans. ñaan yi ma nekkal mu acté waat leen ne dof leen deful mais man def naa waaye ñaata la ma tëj ma pétaat foofu 3 ans ak 6 ans muy ñaata 8 ans 3 mm-hmm. ans ak 5 ans muy muy 8 mm-hmm. encore tey jii maa ngi nii man maay seul détenu ba bu nekkoon si prison bi ñu koy topp dossier 2008 amul fenn. bés boo jàppee ni euh, injustice bi réparé nañu ko tu es prêt à collaborer parce que comme xam nga ni ñu rëcc ci kaso yi di <laughs> wax gars waaw waaw xam nga. xam nga ñun moom ñun ñëpp si ay doomu aadama amuñu benn intention bu réparer defar Sénégal pour mu am njariñ yëpp parce que ñun doo ñu fekkee kaso sax chaque jour da ngay fekk dañuy génn ay kay di xalaat ay projet di bind di teg te bëri na loo ne si ñun xam nañ ko lu mën a jariñ réew mi man defar réew mi léegi loo xamante si nit ñi ñi jàng na États-Unis ñi jàngi Europe fu ne dem na fa ñëw seen diplôme mais wóor na ma ne nekkul seen xel. boo génnee loo bëgg a def loo bëgg a def à euh, man man sama business laay nekk. man sama business moom laay continuer di ko nekk mais problème mooy man xale laa nekkoon doon def yi fi xale te xale googu jàll na yàgg na sax ba mu jàllee mais man jeexaloon naa ko mais ñoom ñoo ko jeexalagut te xam nga tamit comme tant que jeexalaguñ ko tamit pour détails yi mënul ñàkk dem parce que la téye rek injustice yow tamit du du il faut que ngay défendre aussi saa bu nee jëlee yat di dóor il faut ngay baare mais saa bu ñu bàyyee dóor rek di nga mën a beese say ba euh, say bras xam nga mën na xool ak beneen sang ak beneen yoon. loolu daal moom mooy li nga xamante ne nii man mooy sama décision li nga xam mooy importance nag mooy maa ngi leen xaar dossier bi dem tribunal. du demee tribunal ñu woo ma. yaa leen woon ne ma dut ne bu ay dëkk may élevé pour pour choix muy dawal. Euh, est-ce que dafa siiw. tey jii du jiifi correct du jiis woon dossier bi ko tribunal léegi nga dinaa ko si presse bi ñu ne dossier Baye Modou Fall lay jàll te tel jour. nga dem tribunal waaw léegi man na dinaa leen déglu sama dossier du ñu koy appel tribunal ma leen fay fekk. jërëjëf Baye Modou Fall merci